autre ministère euh, pour parler d'un autre ministre mu nekk ministre boo xam ne mun nañoo wax ne fu toll nii euh, moom euh, moo nekk ministre bi nga xam ne problème moo ëpp parce que ndox moom boo ko amul rek yaakaar naa ni di nga am benn mal boo xam ne mardi on va parler de Serigne Mbaye Thiam Serigne Mbaye Thiam ba que journaliste bi interpellé par rapport ak manque d'eau bi nga xam ne nemmeeku nekk un partout à Dakar et dans sa banlieue moom dafa mel nii rek dafa bëgg a jël rejeté faute petite doobo am fii au niveau du Sénégal du temps de maître Abdoulaye Wade mais est-ce que mun c'est sérieux euh, de la part euh, du gouvernement du président Macky euh, ba ñu fi dàqee président Abdoulaye Wade ba tey ñoom ñu réformé waat génnee fi SDE teg fi siège tey jii ñu bëgg a jël la rek déficit en eau bi bu ko teg si ndodd kii di président Macky est-ce que loolu la Sénégalais di xaar si ñoom est-ce qu'il a rassuré en tant que tel le Sénégalais non seulement il a l'attitude qu'il a eu vis à de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade jël sanctionné ko ne ko moom lépp mais ñun loolu intéressé tul sénégalais sénégalais leen intéressé à ce jour au jour d'aujourd'hui moom mooy fexe ngeen Euh, amener euh, justement euh, le ramener à une certaine satisfaction par rapport ak mbirum ndox mi parce que yàgg na fi am surtout que ñoom ñoom ñoo dégager SDE ne ñoom sen o moo leen gënal par biais Suez en France et eh bien ñoom ñoo waroon liggéey liggéey bi wala wax sénégalais problème yi fi am niveau de difficulté yi xam xam véritablement lan moo xew ba problème ndox bi di am ba léegi expliquer sénégalais lool mais toog ni la il vient de dire le ministre donc de l'éducation de l'éducation ministre de de de l'eau et de l'assainissement il faut que mu leeral sénégalais yi exact parce que nee na dans trois mois la affaire bi di réglé wu dina ko réglé définitivement mais moi je reste persuadé que li mu wax du dëgg dara amu ci dara mënu ci am parce que de toute façon yàgg nañu def ay promesses vous êtes au pouvoir depuis huit ans wax dëgg yàlla problème ndox bi ngeen réfléchir ci euh, am expérience ak SDE jóg ngeen ne léegi SDE baaxul dañ koy changer jël Suez ça ngeen wax sénégalais yàqute bi fi amoon lan la selon yow da nga jàpp de vers une rupture de contrat. parce bah, que euh, rien je sais pas non rupture de contrat mënuñu ko def non état mënul siyee ak une grosse société telle que Suez yaa ngi dem xam dafa expérience quand même dans la distribution de l'eau et cetera yooyu Suez da ngay fas que ni c'est d'expérience euh, le déficit mais je suis d'accord mais lan moo tax est-ce que euh, xam nga moo li ma l'expliquer lépp mi ngi dellu si waat connaît des interactions ñi ngi réfléchir mais mënuñu la wax tey jii nii jàpp bi tey euh, euh, exactement lan mooy problème bi dinañ la ne rek Abdoulaye Wade la woon tam ko dëmm et eh régime PDS bi la woon et puis dellu si waat ñëw la ni dans trois mois on va régler le problème maintenant est-ce que c'est vrai man personnellement je pense que ni dans trois mois le problème il ne sera pas encore résolu parce que tout simplement gars ils font ils partent dans du tâtonnement te tâtonnement boobu wóorul li tax ma ne tâtonnement la mooy mbiri da dul leer parce que waxuñu exactement problème yi fan la nekk ana lu tax problème bi am ba tey alors que Sen'Eau ñëw na depuis un an ana lu tax quest lan la ñu am léegi comme solution pour l'avenir ba nga xam ne dans trois mois loolu ñu wax mën na nekk tant que tegaluñu ko ci taabal ji expliquer ñu clairement lan moo xew bu boobaa dinaa mën a am sax yaakaar par rapport à une réflexion xool ndax li ñu wax am na fu mu teg wala déet waaye ñëw rek ne Abdoulaye Wade la woon régime avant bi la woon waaye de toute façon fii ak ñetti weer dinañ la jëndi problème en réalité loolu Serigne Mbaye Thiam wax waxul lenn de travailler avec eux huit ans ak SDE baaxul changé nañ ko jël nañ jël nañ maintenant euh, dans trois mois affaire bi dina réglé parce que non ce n'est pas comme ça que ça marche expliquer lan moo tax dans trois mois affaire bi réglé wu boo ñu expliquer aussi ni euh, régime PDS bi moo ko yàqoon problème bi am na ñun toog nañ fi huit ans di liggéey ak ñoom affaire bi doxul ngeen wax ñu exactement ban problème la ñee amoon ak lan mooy différence problème bi loolu bu amee rek je crois que coow dootul jibati hmm. on va parler euh, si euh, lépp rek loo xam ne euh, waa ñeent polémique bi nga hmm. xam ne autour des licences de pêche yi nga hmm. état bu Sénégal. Mhm. Euh, def na ko ak diggante moom ak Union européenne. mu nekk euh, ministre on va on va s'intéresser aujourd'hui euh, cette fois-ci au ministre woon Ndoye moom dafa mel ni rek dafa jàpp ne dafa rek boote lépp rek loo xam ne rek ñeel na wàllu wàllum raréfaction poisson yi ak accord yooyu noonu est-ce que loolu xel mun na koo nangu. xam nga aussi il faut que qu'on ait l'habitude de dire la vérité aux Sénégalais. xam nga c'est vrai qu'on n'aurait pas le temps de de de de de de de de de s'épancher parce que day day day day compliqué trop et puis il y aura beaucoup de choses à dire mais ci gàttal il faut que ñu comprendre benn affaire mooy accord yi euh, gouvernement du Sénégal signé ak lu l'Union européenne ci gàttal lenn la mooy ñun Sénégal dañu ne Union européenne bateau Union européenne yi y en aura cinq bateaux au moins entre une trentaine à peu près de bateaux thoniers mooy les gros bateaux là yoo xam ne dañuy ñëw ak les bateaux yoo xam ne dañu am ay lignes yu mag yooyu xam ne dañuy ñëw raatale géej gi yóbbu cinquante mille tonnes de poissons sur cinq ans loolu la euh, euh, Sénégal signé ak Union européenne léegi ñoom li ñu. 31 navires euh, dont 10 français et 21 espagnols. et eh ben voilà ci navires yooyu y a au moins une trentaine de navires yoo xam ne c'est des thoniers. mooy navire yi nga xam ne ñoom thon la ñuy récupérer mhm. le maximum le thon gis ngeen fii nii dañu am ay problème ak ak ak ak mbirum thon bi mhm. mais navire yooyu di ko récupérer Sénégal lan la la ciy gagné mooy chaque année ñu jox ko deux milliards cinq cent millions mhm. deux milliards cinq cent millions boo ko multiplier par cinq mooy je crois douze milliards cinq cent millions donc moins de treize milliards la ñu loué la ñu jëndee bateau yooyu pour ñu am droit ñoom loolu la ñu jox. vous pensez que cette somme est insignifiante. mais c'est une évidence parce que bato yooyu bi ci gën a mag bi ci gën a rëy deux milliards lay jar de francs CFA pas moins deux milliards trois cent mille deux millions trois cent mille euros lay jar muy pratiquement booy defee calcul bi muy moins de deux milliards de francs CFA benn bateau bi ci gën a mag bi ci gën a cher. deux milliards lay jar bi ci gën a tuuti moins de un milliard lay jar donc bateau yooyu di ñëw fii di raatale ñun pourquoi du ñu changer suñu politique de pêche au Sénégal. Mmh. économie maritime bi pourquoi du ñu def ay transformation euh, jéem a liggéey ak les acteurs de de de la pêche au Sénégal jéem a créer mais bateau buy jar deux millions d'euros mooy un milliard trois cent millions mais bu fekkoon ne politique Sénégal président Macky Sall def na chaque mandat mu jël euh, dix jënd dix bato liggéey ak pêcheurs yi au Sénégal mais ñun bato yooyu ñoom ñooy ñoom ñooy def liggéey boobu. parce que ñun suñu gaal mu ñu ko def bateau yooyu bu ñu defee liggéey bi bu ñu amee le maximum de poisson parce que dañuy jël lu bari bu boobaa ñun déjà prix euh, jën bi dina wàññeeku et puis dinañ lekk jën ba suur et en plus de ça jën yi des yi des parce que lu bari lañ ciy am yi des bu boobaa ci suñu côté li des ñu jéem ko jaay euh, en Afrique Afrique de l'Ouest Afrique en général et jaay ko bitim réew waaye ñii dañuy jël ñëw raakale jën yi jënd ko mais imaginez bien boo defee le calcul mhm. benn tonne bu nekk. benn tonne bu nekk. 200 mhm. francs tonne de thon. 200 mhm. francs lañ koy jaayee lañ koy jaayee tubaab bi wala comprendre loolu li ma wax. Mhm. boo defee calcul bi. 12 millions 500 mille 200 euh, francs. le poisson brut ñoom ñu demaat ex kii ko def ko produit fini. mais ñëwaat jaay ñu ko le quadruple. mais mais foofu sax rek déjà rek foofu rek euh, li ñu jëndee 200 le kilo foofu ñu ngi koy jaayee pratiquement autour de 20 euros 20 euros presque ay 15 plus de 15 mille ñoom ci seen boo demee ci seen centre commerciaux yi boo demee ñu ne la ton ñu ne la vingt wala vingt et un euros aussi à tenter de justifier accords yi nga xam ne état bu Sénégal euh, def na ko ak euh, kii di Union européenne parce que moom jàpp ne accords yooyu depuis 1979 état bu Sénégal mu ngi koy signé ak euh, Union européenne bon mu nekk loo xam ne mun nañu wax ne du sous le règne du président Macky mais est-ce que accord yu valable de moo war a valable 2020. mais est-ce que warul am ay progression. mais évidemment que dafa war am ay progression et puis ñoom sax dañu dëkk évoluer accord

wax bi moom mooy est-ce que ñun sénégalais yi ñun mënuñu jënd suñuy bato bato yooyu ñun mu mënuñu ko jëndal sénégalais yi liggéey ak ñoom je ne sais pas dans quel cadre de coopération ak les acteurs de la pêche jéem a xool nu ñuy def jëndal leen bato yooyu wala ñu organiser état bi di leen surveiller ñuy liggéey di in di dugal xale yi ci ci ci job boobu ñuy job di am ay di am nekk di employer ay sénégalais ba pare di fay ay impôt au Sénégal di jox sénégalais ñuy lekk jën ba suur ji euh, sans aucune forme de cherté parce que du cher li ci des ñu jël ko jaay ko bitim réew comme ça ñun au moins dina am ay devises on va capter des yoo xam ne day dugg ci biir réew mi au moins ñu def ko waaye ñun gars yi ñoom ñoo ñëw jël dem defar jaay indiwaatal ñu te loolu mun ñun mun nañ ko def mais jàpp quand quand je je vous ni non pourtant ça me paraît clair. bato bato yooyu mi ngi jar deux millions de dollars bu ci gën a cher mooy un milliard trois cent millions mooy deux mooy mooy un milliard un million trois cent millions dollars mooy deux milliards mooy de deux milliards bi ci gën a cher waaye bateau yooyu ñun lu tax duñ koy jënd mais ñaata milliards la ñuy yàq ci yeneen i béréb yi comme ça ñun. mais allée résidentielle comme ça sax après dina am ay usine de transformation à côté di def ay ay huile de poisson di def ay affaire di def ay boîte thon di ko jaay di ko commerce commerce ci biir réew mi li ci des ñu jël ko di ko jaay bitim réew bitim réew xaalis di jóge bitim réew ñu am ay devises yu dugg ci ci réew mi pourquoi du ñu liggéey ci yooyu pourquoi ñun daal ñu nangu rek ñëw moo gën a yomb en réalité jox la licence nga négocier ñu jox la licence bu la joxee licence nga dem boo demee raatale joxe mais ñoom 2 milliards 500 millions bi ñuy joxe par an xoolal rek 50 pour douze milliards cinq cent millions ci juróomi at yi compter leen rek cinquante millions cinquante mille tonnes cinquante mille tonnes de poisson la gars yi am droit jël ci juróomi at yi douze milliards cinq cent millions la ñuy fay ci juróomi at yi mais ñun te bato yooyu di ko def benn bato bu nekk bi ci gën a cher nee naa leen deux milliards lay jar waaw ñun pourquoi ñu dem jënd yooyu di ñun ñuy ñuy dem di napp thon yi di napp jën yi nga xam ne tubaab bi dañ ko soxla. créer suñu ay usine fii lekk ci euh, jën yooyu day gën a moins cher au Sénégal bu ñu paree ñu jaay jaay Afrique jaay tubaab bi dañ koy jënd par force parce que dañ ko bëgg ñun ñu ngi nii am am ñu jaay ceeb am nañu am nañu kii. Euh, mais mais yi sax. Ah euh, mais mais bu boobaa dañ koy jënd mais amuñu choix mais boobu dañ koy jënd parce que dañ ko soxla c'est comme ceeb bi ñuy dundee ñun mënuñu ko bay ba mu doy dañ koy obligé di ko jënd ñële ñoo ñuy fixer prix bi. ñeneen ñooy fixé prix bi donc ça pose un problème je crois que ce n'est pas vrai loolu du dëgg li ñu war a def moom mooy fexe ba mënal suñu bopp di def suñu ay usine de transformation di jënd suñu ay bateau yoo xam ne bateau bateau yi bateau usine lay doon mm-hmm. bateau yoo xam ne ci biir usine bi mm-hmm. ci biir usine bi ci biir bateau bi moo am ay usine ci la jëlee jën bi ci lañ koy daggee ci lañ koy toppatoowee ci lañ koy defee paqueté ci lañ koy génnee ci lañ koy jaayee intermédiaire ñëw ñu jaay ko société yi taxaw ñu ci la ñuy def ay usine de transformation ci zone côtière yi ba nga ne dañuy defar ay usine dañuy defar ay ay huile lu ñu mënul def ci jën même même kii de poisson lu ñu koy waxatee euh, farine poisson pour pour pour pour les pour pour pour yenn yenn yenn béréb yi nga xam ne mën nañ ci liggéey mu pour xale yi di si liggéey mooy mooy les les euh, les les machins là li ñu mooy mooy ndox yooyu ñuy def ba pare di ci kii jën yi xam pisciculture nga xam ne dañu am lu ñuy dundalee jën yi moment boobu xam nga parce que même même même même même desitu jën yi yàqute bi sax yooyu mën nga ko def. de la pêche mais de la pêche au Sénégal avec des usines avec des machins les Sénégalais qui sont propriétaires de certains bateaux de pêche yoo xam ne état bi moo leen dimbali mais état bi du leen dimbali ba pare di leen bàyyi noonu daf leen di jàppale ba pare di leen surveiller di xam ñaata la ñuy yooyu euh, propriété de bateau de pêche aussi euh, Aliou Sow bien vrai que état bu Sénégal am na part de responsabilité par rapport ak accord yu muy signé ak Union européenne mais y a de ces sénégalais aussi dañuy nekk de connivence avec des chinois. yoo xam ne dañu am ay licence sénégalais or que ay bateau chinois la. la loolu loolu c'est état bi mooy assumer ses responsabilités en faisant loolu c'est simple ah c'est affaire man maay autorité maay décider waaw wala déet wala loolu mën na am. mais état bu Sénégal nu mu koy xamee bu ñëwee carrément fekkee Aliou Sow moo présenté or que Aliou Sow boobu c'est un chinois. donc état bu Sénégal il va y contrôle et a priori et a posteriori loolu non doo leen bàyyi doo ñëw jox lu toll ni licence de pêche nga sànni ko ay nit. dëkk bi nga xam ne suñu côte yi dafa bari ay dafa bari jën nga ñëw di ko sànni nit ne ko defal lu la neex pendant un an wala deux ans wala cinq ans am nga droit def lu la neex parce que am nga sa licence non dama jox licence mais damay teg ay conditions conditions yi d'abord ay conditions de surveillance damay condition de contrôle bu ma contrôler mbir mi dinaa xam ndax li ngay def baax na te ci contrôle yooyu ci biir contrat yi surtout ci licence yi bu ne moom laa lay def ba su ko def sénégalais bu ñëw complicité ci loolu bu jàppee contrat bi day day day signifier li ñu lay def yow bu booba mm-hmm. lan la ci yoon di teg ak yu demee noonu loolu ku ko def day mel ni comme jaayum drogue wala trahison pour le pays. ku ko def sénégalais bu def loolu bu ñu la jàppee yow xam nga fi ñu la jëm parce que yoon am na lu mu prévoir bu boobaa code de la pêche am na lu mu teg bu boobaa non je crois que il faut contrôler tout ça ce n'est pas parce que dama lay jox dara que forcément dama la wóolu euh, euh, comme ni koy olof bi di waxee la confiance n'exclut pas le n'exclut pas le contrôle mun naa am confiance ci yow mais dama lay contrôler aussi pour xam li ngay def parce vérifier ko parce que dina am ñoo xam ne ay inspecteur de la pêche la ñooñu ngay dégg la xamuñu tudd mais ñooñu mën nañ dem di vérifier mbiri bu ñu ko vérifier dinañu xam exactement ce qui se passe est-ce que ñoom li ñu leen jox li tax ñu jox leen mbir moomu licence boobu euh, est-ce que ñi ngi def liggéey bi war ci est-ce que ça correspond au travail qui a été qui a été proposé est-ce que jaar mbiri jaar na yoon est-ce que ñi ngi fay ay impôts ñaata a contrôler loolu encore du boulot parce que ñi koy contrôler ñooñu aussi dañuy liggéey ay sénégalais lañu doon fay